yan na yàlla def gis nga àddina àddina dañ koy suukar te bañ koo xorom gis nga fii ku dul yonant soo fi jógee mën nañoo takk sa soxna ab yonant rek lañ du takk soxnaam ginnaaw waaye ku dul ab yonant boo fi jógee mën nañoo takk sa soxna sa ginnaaw kon maa ngi ñaan njaboot yi buñ di lor seeni jur yi nañ leen bàyyi buñ giseen ko leen ko leen bëgg ñu jàppale leen ca am na ci ku ma xam koo xam ne mu ngi fii day ñëw ci xadara bi biñ bëggee takk ndeyam dafa lank bi tëdd ci suuf te tegu ko fet ne ko bu la neexee mu takk la ah, mais da ngay génn kër gi sa ndey jur la ba nga am kër wut néeg dugal ko ca mottalil ngóorali ka ko bëgg bëgg koo takk ñëw ci kër gi di fa fanaan loolu lay wàññi sa baay ñàkk na fayda ba fase sa ndey bàyyil geneen góor jël ko waaye di lor sa yaay ku ko ci def di nga ko layoog yàlla te yow te ñu baal ma ci wax ni ñu baal ma te yow ku góor gi yow même jur bu guddi jotee nga xëcc sa bunt tëj yaa ak sa soxna yaa bot bàyyil sa yaay moom it xëcc tëj buntu mook sa baay waaye nit ñi dañuy dañuy faw te yii dafa bari Sénégal de billaahi wal kitaab bi dafa bari Sénégal daf fi bari daf fi bari nañ ko wattandiku nañ ko wattandikoo sa kilifa doo nekk kilifaam sa kilifa da ngay dox ci waawam surtout li mu bëgg nag yàlla bëgg na ko li mu bëgg yàlla bëgg na ko bëggul lu xaram borom këram faatu na wala tàggoon ak borom këram keneen a ngi taxaw pour bëgg ko mais may ko ko waaye parce que yaa yor woon sëggi kër gi yaa yor dépense kër gi ne ko doo sëy gannaaw tàggoo nga ak sama papa doo sëy gannaaw sama papa faatu na doo sëy foo ko teg tegu ko fenn sa bànneexi bakkan boo dee di nga ko layoog yàlla sa yaay na am fulla ju day ne claqué porte yi bàyyee la sa xottu kër dem luye ji ab néeg jël waayam fat fa li bay dundee ba sax sikkim mën na caawee ba ba muy dee way jur yi tamit nañ am fulla ci seen njaboot man doom du mën a jur ba pare nga yàpp ma déedéet sa sagaru kër gi nga am ba dugal ma ci maa la jiitu ci kër maa la dugaloon ci sama biir bi nga di ma weq wax nan ala wax nin wa fisaaluhu fi amayn an ishkur lii waay wali waliday yàlla sa néeg danga koy teg ne ko yee doom sa baay bi mu àndeek man danga koy wax cosaanul ndeyam waaw sa baay bi mu àndeek man ba nga sosu sa baay da daal nelaw guddi ba yaan lool man nga di ma weq ci sama biir bi fii yee doonoon sa néeg joxoñ ko biir bi yow ndey waxal ak moom fu la jut mat sëkk joxoñ ko biir bi ne ko yee fii yee doon sa néeg balaa ngaa am kër gi fii moo doon sa néeg fii fanaan nga fi juróom-ñeenti guddi mënoon naa laa rey te kenn du ko yëg dëgg la wala du dëgg fanaan nga fi juróom-ñeenti weer mënoon naa laa rey te kenn du ko yëg bu may tëdd sax di seet nu may tëddee bañ laa gaañ su may wëlbate di xool nu may wëlbate bañ laa gaañ la ma daan lekk mu neex may ma xëy mu naqari ma ndax yow dëgg la wala dëgg da ngay wax ak moom la ma daan lekk yépp ma xëy rek mu mu mu soppeeku neexatuma ndax yow ba ngay génn sama bakkan xajoon ci nga génn ma leewu la manoo dara maa lay sang maa lay nampal su ma la fattal sa bakkan yi étouffé rekk nga dee ma xëy yar la yóbbu école ngay jàngi ma di la yóbbu di ñëw di la toppatoo ba nga màgg tey nga am sa sagaru pukkus bii sa baay tàggook man wala sa baay dee nga ne duma duma fi dugal keneen yal na ma yàlla may fu ma jëm waaye jëlal sa kër maa ngay dem fii nga nekk yow doom yal na la fi yàlla may jàmm man mi la jur yal ma yàlla may fu ma wéer sama ndigg billaahi boo ko defee kër ga takk ci koom dégg nga wax bi jigéen ñi tamit nañ am fulla ci seen ci seen njaboot nangul jur doom mu gën la ndax ku ne nangu na ko ndax rasulullahi moo gën ndeyam moo gën bàyyam nit dana jur doom mu gën ko waaye bu ko ko wan man soo ma wonee ne maa la gën ma bala kon nañ ci def très attention Sénégal bari na fi nag moo tax ma di ci wax ndax dañ ma ciy interpeller muy fii muy bitim réew dañ ma ciy interpeller ni muy dalee jigéen nit lay dalee góor da ngay gis borom góor bu borom ci soxnaam génn àddina xale yi ne ko beneen jigéen du fanaan suñ néegi yaayam ah sa yaa ca bàmmeel ya bàyyil keneen fanaan suñ néegam lu ciy sa yoon ñaari contexte yëpp dafay am kon nañ koy waxtaanee suñ ko dul waxtaanee xamal leen lu ci yàlla wax duñ ko bàyyi te day gën di métti rek te lu métti baaxul ñëwee.